jërë ngeen jëf bal yi fetal yi ñu jàppoon ci piir yëf yaa ngay bëgg a rax libération nañu ci lu amul benn werante mbiri terrorisme la ñuy ragal mu rax ci dossier bi bil yéene kay bi démb ci talaata ji yem ak juróomi fan ci weeru novembre ci la parquet bi ubbi ab information judiciaire tuumay association malfaiteur yu lëkkaloo ak ñu yëngu ci wàllu terrorisme yore gànnaay ngir di waajal ak terrorisme ak yu ni mel moom la wër ci yooyu la tuuma Macky Tall Ndiaye di waaj ju ñu ne moo doon dawal wata bi ñu fekkoon bali fetali ba jàpp ko ci Pire mook beneen waay bu ñu naan Ahmed Ndiaye newoonub contact gam ca Ross Béthio ñoom leen ñoo nga ca kaso ba la war a jàkkaarloo ak juge bi soldat bii di Amadou Bekay Sangaré te ñu ne lépp moom la libération nañu moom léegi tey gendarme yu section recherche yi teg ko loxo ñu bàyyi libération te dem ci révélation yi journal l'observateur xëy joxe ci juróom-ñaar téeméeri kilo cocaïne yi marine bu l'armée Sénégal jàppoon ci géej gi dorog boobee ak njëgam toll ci fanweeri milliards ak juróom réewum Brésil la jóge woon waroon a dem Europe jotoon naa jaar Maroc bi koy soldaari Sénégal yi di jàpp jàppale woon nañu juróom benn nit yu ne woon ca bato ba ñoom ñëpp war nañu leen a ca kanamu procureur ba coowal dorog beeg coowal bali fetal yu bari ñu sàccoon bëggoon koo génn réew mi mel ne lu ëlëm journal Le Quotidien ba tax mu xëy di yëg complot insécurité dans l'armée maanaam ñàkku kaaraange ci l'armée bi moom la journal bi xëy bind ci xët bu njëkk pétrole beek gaz bi ñuy wax ci réew mi ak coow li ci laxasu moom la Sud Quotidien xëye ba wax ñu ne contrat d'exploration bu pétrole beek gaz bi ñenn ñu doon jébaane ba mu teree ji woon ci yoon yoon di justice tàmbali na audition yi lattre bi nañu loolee moo yóbboon Abdoul Mbaye ak Birahim démb ca kanamu doyen des juges waaye ba ñu fa démocratique ñoo ngi tuumal doyen des juges ne a fixé consignation bi jëm ndax atum ba suñu jonn yàlla tey musuñoo am ci réewum Sénégal ay élection locale yu ñu tuxalul l'observateur nañu élection locale yi ñu waroon a amal ci réew mi benn fan ci te mujj koo dàq gouvernement bi wax na ne gën ko yàgg dinañu ko def ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2021 journal bi gis ne dogal boobee dogal la bopp li ci laxasu ci calcul politique kenn xamul nu mu toll fi ñu toll nii suur waa nee nañu gaa ñiy jàppal tànk directeur général post ba woon di Pape Siré Dia te fare ca Louga amatuñu jàmm te it amuñu lu leen neex mu di mouvement ànd ak Siré Dia moo waral ñu def ab conférence de presse démb ca Louga wax fa ne li ñu bëgg moo di nit ku mel ni Siré Dia ak fi mu féete président Macky Sall ak njariñ li mu ko amal rawatina ci élection bu doon seen sago président Macky Sall la gën a dooleel Siré ndax nit ku mel ni Siré Dia kenn du ko am di ko sàggane baa nga koy ginnaawal ginnaaw loolee ñu wax ci xibaar bi fi jiboon jëm ci hôtel Lamantin ubbil libération dañu fay waxoon ne ca hôtel Lamantin dafa am benn client bu fa ne woon doon doxaan juróomi jigéen ñu doon liggéey ci hôtel ba ba far ëmbal ñaar ña xibaar boobe libération nee nañu kilifa yu hôtel Lamantin yi weddi nañu ko ba mu set wecc nee nañu amul tey amul ëllëg dara du ci dëgg wax ji yëpp sosi neen la te ñi ko def jubluwuñ ci dara lu dul bëgg a yàq derub hôtel Lamantin seetaan ñi bind loole dinañ leen yóbbu ci yoon ndax ku xam hôtel Lamantin xam ne ci professionnalisme la ñu mës a dox te it ci la ñuy sax ñàkk ku kaaraange mi ngi bëgg a sëxin ca Touba li koy firndeel mi ngi ci xët mu njëkk Vox popule benn bijoutier bu ñu naan maali Kayre toll ci juróom-ñaar fukki ak juróom maanaam soixante-quinze ans moom la ay samba booy fekk démb ci suba ca bijouterie ba nekk ca marché Ocass tiimale ko fetal yeew ko ba mu ne ngodd jël ci moom benn million ak genn wàll dajale or ba newoon ci bijouterie ba toll ci ñaar fukki million jël lépp dem seen yoon clair et